defe naa duñ fa am masaalikul jinaan parce que dañu ñëw teg ko ba bañ nañ ko ba ci marché sax dafa amoon ay kees pour di wax fi sabilillah fu lu waay am donc kon ku ne lañ ci boole kun kun masaalikul bi du ay comme ni nga ko waxee murit yi ñoo ko tàmbali mais du tabaxuñu kër sëriñ Touba kër sëñ Touba kër sëriñ Touba sax jàkk la mais sëriñ bi tabaxul këram boo demee fekk ko moom mi tabax ay milliards boo demee fekk ko këram boo ko évaluer di nga xam ni matul li ngay xalaat kon donc du loolu moo ko ñor ki nga xamante ni dafa tabax juma tabax ko xam li tax lan mooy jumaa boo bëggee toog di ko wax lii lañ ko war a yaakaar rek lii nañ fa war a def ak nangam nangam idée yooyu ngay wax noonu da ko waroon a dem toog parce que dañuy am tey ji raw du rayaa yeneen fi boo idée boo mën a am ci lu rafet mën nga dem toog ak ñoom wax ko parce que loolu mooy tax affaire yi dox sëriñ Muntaxa ku ko xam-xam ni ku ubbeeku la njàng ñor ko trop parce que xam na ni jamono bi ñu toll sama classe gi dañoo bari ñi jàngul mu bëgg leen a xam ni njàng ci dafa am solo mais professeur bu mel ni yow it bu téyee élève ak façon bii nga mel pour nga def dara ci bopp élève bi mu parce que boo rëyee mënoo def dara ci bopp nit parce que bu fekkee nangoo critique yow kenn du la critiquer yow yaay kan aussi yow yaay kan ba war a mën a téye nit ñi di indi ay affaire ay nit ñi ay golo la ñoo tarixa yi ñu ci ëpp ay golo lañ mais wax yu ñaaw yooyu mooy lan ci jamono bi ñu toll nii ba pare dafa mel ni ngeen di da di def seeni prop da ngeen di créer yéenay créer problème te ku wax ngeen bëgg a jàpp ni peut-être dafa wéeru fenn moo tax ñun ay jullit àqan nañu comme yow gënoo ñoo nekk ay jullit ay jullit piir lañu gëm Seydina Muhammad bu wér ba pare gën laa oyof loolu mooy suñu différence ak yow parce que xëy na peut-être njàng bi nga jàng moo tax maam Cheikh Fall doyoon war nee na jàng baax na ndax loo gis xam ko waaye gis nga liggéeyal Serigne Bamba loo bëgg am ko Serigne Touba amul lu mu wax loo xamante ni fu fu fu ñu dem gis nga lam yeen une sajjaroon wala wa xëydo boobu waxuma ri ilal jinaan xëydu néew ma kenn ni la dangay dangay da ngay song Serigne Touba wala da ngay song yoonu murit parce que loolu koo koy wax ku koy songit Euh, li sëriñ bi wax rek baarakani fil arakaati wa sukkoon rabbi lazi xat xaadili kun fa yakkoon biraasu man baarisani biraasu man yu baarisun muntaqi man baarisa man loolu moom def nañ ko defar na ko ba teg ko nale foofu moom amuñu luñ ciy xalaat ndax sëriñ bi def naa euh, mën na boppam daal moom doo nga dem te moom doo nga ñëwaat donc xalaatuñu ku mel ni yow mbër mu ndaw moom ñu ne xalaat di ci xalaatuñ ko waaw dafa naa du yaawu jàll doo xalaat ni day dem ni day day bëri Balla Gaye non non xalaatuñu loolu cest à dafa nekk jamono boo xam idée yu rafet boo ko amee ba mu jaral la ngay def live nga nekk un sénégal Sénégalais nekk un professeur war ngay mën a dem déplacé wu mbàkk yi fay nga à zéro de chez toi nga dem gis ko looy am idée yooyu am nga def ko bu fekkee da ngeen bëgg ni yéen l'islam bi dafa war a am dafa war a booloo ba pare ngeen bëgg a toog ci seen ruq di def seen live li ngeen di wax ci ngeen koy wax. màggalu Tuubaa ngi nii ñuy def ay conférence ak lu nekk est-ce que waroo fa woon mën a jéem a dem toog parce que bu fekkente ne ni santale gi Sëriñ Tuubaa def ne da ngeen ma santale sunu borom ngeen ñëw santale ma sunu borom la wax ñu màggal ko donc kon ku nekk ci ñun war nga mën a ñëw joxe ci li nga mën fi nga toll yow idée yu rafet yeeg laay fii ngay def nga ñëw toog foofu ci jotaayu murit yi xam wax li nga wax dafay rafet. loolu la ñuy soxla mais soxlawuñu par exemple ku mel ni kuy defar ba pare te boo koy seet li ci ëpp ci suuf dafay am nu mu demee daal gis nga defar bu fekkee da jóg pour defar yow sa bopp tey war ngaa mën a jóg ni damaa bëgg a dem ba biir Masaalikul Jinaan ma toog fa def sama live def lu tout toog wax ak nit ñi xam le ni fii nii la demee. pour yëfi yàlla la te nañu fexe ba ku ci sénégalais bu nekk wala jullit bu ne nanga yëpp yëg ni kër gi sa këru bopp la c'est ça le problème parce que tamit dafa am loo xamante ni jullit ñépp la jullit nag moom buñ nee jullit ku ci génn sa bopp yaa ci génne sa bopp mais nii ñu fa defee xadara bi loolu ça veut tout dire mais tey jii buñ nee Serigne Touba keneen daal ni nekkee xëcc mais te ñépp di benn bu mag moo ci tudd rek tudd nga keneen le fait que nit ñi Serigne Touba teg ci keneen sax ça veut ni kooku mooy def différence bi tey ji boo toogee kër su ma toogee sa kër sa kër laay wax boo génnee ci kër dugg ci beneen kër wax ci kooku mu mel ni jeex na parce que lépp ay kër la mais bu fekkee bu ñu nee bi nga génne Serigne bi ni teg keneen ça veut que ni yow yaay def différence bi mais tey ji boo demoon dem ba Touba toog fa Serigne ba ngay waxtaanee mais boo waxtaan li ngay wax ci moom ngay jël. nga jóge fa dem Tiwaawan tamit da ngay jël ci maam Maodo nga foo mën a dem ci Sénégal même mi bu ma duggoon sa kër loo def bu dee livre yoo bind wax ci dañ ciy mën a débattre waxtaan ci lu mel noonu noonu la àdduna bi rek demee mais du dañuy jël rek ngeen ni dañu parce que nit euh, ngëm-ngëm dafa dafa dafa nekk loo xamante ni parce que nit mënul gëm lu dëggu ay ndaw jàng ñëw rek bëgg a effacer loolu ci seen bopp. parce que jéem ko moderniser ni ngeen di waxee ba mu mel nii da ngeen di defar te pourtant boo waree defar am na yoon boo mën a jaar mais bëgg a def sa live ay façon nit ñoo xamante ni euh, li ñu gëm mooy ñan naar yi la ñu jàpp nañ ni di wan nit ñi yoo xamante ne te lislaam bi bu ko ñëpp xeebee ci jamono bi tubaab yi ñi nga xamante ni ñooy naar yi ñoo ñoom ñoo ñoo ko créer ñoo ko créé ñoom ñoom ñu waroon défendre l'islam ñoo toog nekk l'ennemi de l'islam yéen ngeen gëm façon yooyu ba pare bëgg a toog nag aussi di ñu expliquer ay c'est-à-dire boo waxee nit ki amul xalaat moom pour pour analyser ko quoi mais loolu tamit foo ngeen bàyyi ci xel parce que bu fekkee da ngeen am lu ngeen di war a débattre dafa bari ci lu ngeen war a mën a débattre comme le cas de euh, Imam Kanté bi rek même chose façon yooyu kenn diabolisewul kenn nii da ngay songu parce que loo <coughs> loo defarul mënoo ko yàq. parce que kenn tooguñu xalaat kenn ni dina attaqué bi murit moom ku koy attaqué sa problème bopp la parce que Sëñ na moom yàlla defaral na ko lépp kenn donc ko jaaxal ni ko yàlla def ko mu neexul te loolu ñi jub sa Masaalikul Jinaan bi wane na Sénégalais yépp benn lañu ñépp a ñëw ku ci nekk yëg ci sa bopp donc loolu lañu war a jël rafetal ko teg ko bañ ci indi leneen nga wax ni lii mu ni mu rafetee kon donc nañu fexe ba sàmm loolu continuer ci lii waaw man de vraiment bëggoon naa lu ma ci mën a dolli sama xam-xam wax nii da nga wane ni da ngaa bëgg a bokk ci luy defar mais tamit masaalik bi ñen ñoo ko idée bi kan moo ko am mënoo fexe ba masaalik boobu sëriñ bi du ci doon dara ah, mais sa c'est c'est normal yow sa kër yaa ngi koy tabax ñoo fekk école bu nekk à côté nga ni naa ko defaraat sa kër ngay fexe noo ko liggéeyee mu taxaw yow. am na école boo defar yow pour ni naa naa ci naa ci def ñaari salle de classe wala dara luñ la fay danga koy dugal jox ko sa njaboot nit ñi nag sëriñ bi boo demee këram moom fekk ko fa xam ni kii lii muy tabax la moo ko gën a ñor fi mu dëkk donc kooku loo koy jàngal amul te yow boo yoroon wecciti sa ku la fekk sa kër dina xam ne yaa ngi di nga nekk ci les quoi dafa am yoo xam boo koy wax ku ko xam jaru ko nga ñëw bokk ci yow wax ci sa xalaat loolu lañu soxla ku mel ni yow parce que université bi da nga waroon toog ci débattre yow di def say live ci université bi parce que professeur nga di wane ni sénégalais am na nu mu demee parce que mouridisme tey ji nangam mooy représenté nangam lu yàlla def mënoo ci ñaar boo ko waxee dafa mel ne ku ne laay laay la laa rek waaw nga wax ko nga bañ ko wax moom Seydina Mohamed mooy ngeen ngi def jeex na. nga wax ko it da nga ciy jariñu rek mais nga ñàkk ko waxit du toon mu ne sëriñ bi moo fi nekk nii maanaam leader nàngam ak nàngam loolu sëriñ bi dafa tegu na na le waaw wax ko it yàq ay wax la rek parce que lu am la ba pare surtout yàlla moo koy def dafa am loo xam yàlla la comme nag mbiru yàlla moom jaam bi da koy nangu rek daal di feex waaw kon nga gën a defaruwaat sa wax ji nga fexe di encaisser nit ñi wàcc tolloog nit ñi boo bëggee def ci ñoom dara mais bëgg def live boo xamante ni rek li nga xalaat la la nit ñi di laaj nit bu ko dara jaaxalee ci yow nga dimbali ko sax wax ko ko expliquer ko clairement mu xam ko moo koy jariñ mais tey ji boo ko leeraloon tey ji ni ko nii ak nii ak ñi la demee mais yaa ngi koy taxé comme si benn mais doy war nga xoolaat bu baax sa sa sa sa communication bul jàpp ni nag nit ñi da nga gën a taxaw nit ñi gën a yeewu nit ñi bu ñu wax parce que li nga jàng nga rek def say recherche di def di expliquer lu ñu wax nga dugg ci baaxul di traiter nit ñi ay ijoo te yow booy am na yu bari boo koy seet après à la fin yow yaay mujjee nekk idiot aussi waaw te ak sa niveau bul fexe wàcc nag ba tolloog ñenn ñi ay duma déglu ñii ak duma def nii nangam àdduna bi yonent doo fe bu dee dangay roy nit danga koy roy ba mu jeex xam nga yonent bi ngay toog ñu naan la dëkkandoom da ko daan sotti mbalit mu xëy ko gisu ko yow ku la sotti woon mbalit bu ne xanaa kenn waxtu ko nga bëgg roy nit du ngeen roy ci jikko yi yonent bi yàlla da koo tagg ci jikko togg ko ci leneen